asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw tey règle bi jël mooy xalxalaa xalxalaa nag mooy bu ko waxee cinq lettres yooyu noonu ñoo ko séq mooy ba ja da to xo foo ko gisee ñu mas ko sukkoon ah bës ci lettre bi da ngay appuyer ci lettre bi bu baax ak tamit mën nañ ko bañ a mas sukkoon mais bu nekk ci terminaison ci ji jeexin jeexit bu nekk ci jeexit tamit sukkoon lañ koy mas xoolal mën naa la jox exemple comme ngi nga ni bisimilah rahmaani rahim. loolu lañ koy wax bisimilah rahmaani rahiim mi tamit loo tamit si si règle la bu nekkee terminaison rek sukkoon nga koy maas comme fii boo ne Allahu samad boo nee samad rek sukkoon nga ko maas kon da ngay bës si lettre bi da ngay appliquer règle bi règle xal-xalaa bi muy loolu bu la neex nga ne Allahu samadu nga boole ko benn aay bi si topp lam yalid nangam nangam mais bu nekkee da ngay taxaw si lettre bi sukkoon nga koy maas kon na ngay bës si lettre bi Allahu samad. Hmm? donc pour gën koo leeral ñu ñëw si saar bi saar bi tamit jànguñu ko de incha allah dina si ñëw mais règle yi ci nekk rek lañu indi fii lan la wax wala aadiyaati dab gis nga baa bi lu mu coloré yëpp lu mu coloré yëpp règle xalxalaan mu ngi mu ngi noonu fal muuriyaati xodd gis nga xodd xaw gis nga sukkoon lañ mas si kaw nee naa la juróomi lettre yi si kaw buñ si mas sukkoon wala mu nekk si terminaison boo koy wax da bës si lettre bi fal muxiraat sub xool hmm? fal mu ngi noonu fa asarna bihi naq gis nga fa fa wasat gis nga xota bu ju juróomi lettre yee yëpp boo si gis ñu mas ko sukkoon da ngay bës si lettre bi da nga si appuyé mu ngi noonu walla taala alam asalaamaaleykum wa rahmatullah